salaamaaleykum mbokki déglukat yi sunu mbégte rëy na ci li nu xam ne yéen a ngi nuy déglu ak takkute bég nanu it ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub mbokk yi nuy déglu wolof njaay dafa ne garab gay doon pénc lawbe du ko gis ba di ko gor tey dina nu dégg ni nu léebu wolof boobu mën a dimbalee ngir nu jàpp li ëpp njëriñ ci xabaaru yonent yi kon li nu fas yéene jàng mu ngi jëm ci deewu yeesu ca bant ba almasi bi yéesu mi ñuy wax isa mu ngi xaw a mel ni garabu penc gi ci leebu wolof bi méngoo naag la ca yonent yi yëgle woon bu yàgg moo ne terewul mu am ñu ci ñàkk ànd naan déedéet yàlla mënula seetaan yonentam muy toroxe noonu waaye ñooñu dañu réere mbir ne noonu la ko yàlla bëgge woon ndaxte bàkkaar musiba mu rëy rëy la te ngir yàlla mën la baal te du moy njubtem fokk mu àtte say bàkkaar àtte bu jub yàlla àttekat bu jub la moo tax mënula baale bàkkaar yi noonu rek yéen a ngi fàttaliku ni yàlla waxe woon sunu maam aadama ak awa ci toolu aajana ne leen su ngeen lekkee ci garab gi ma tere di ngeen dee maanaam dingeen xaajalikook man ba faw peyug bàkkaar mooy dee ak safara abadan te nit amul menn pexe musal boppam ci àtteb yàlla bu jub bi tey bàkkaar mooy dee tàbbi safara ba faaw looloo tax ca jamono yu jëkk ya yàlla daan laaj saraxi mala noonu xar mi dee ci palaasu tooñkat yi muur seeni bàkkaar waaye saraxi mala yooyu ay misaal kese lañu woon ci musalkat bu sell bi naroon na ñëw kon xabaar bu baax bi nu war xam tey jii mooy am na daanaka ñaari junni at yàlla yónnee nanu musalkat bu am doole mu tuur deretam di sarax bi nu fayal mbugaluk bàkkaar benn yoon ba faaw leneen li nit ñooñu le war a xam itam mooy li yonent yi waxoon ci deewuk almasi bi lu yàgg laata muy ñëw ci tënk yonent yàlla ibrahima yëgle woon na deewuk almasi bi bés bi mu saraxee xar ma wuutu woon doomam yonent yàlla daawuda it xamle woon na ci saboor ni ñuy bëtte loxo yi almasi bi ak i tànkam ba léegi ci mbirum deewuk almasi bi déglu leen li ci yonent yàlla esaayi bindoon lu jiitu dikku almasi bi mu ne sunu baakaar a ko tax a gaañu mu ne laaj ndax sunuy ñaawteef mbugal gi nu may jàmm ci moom la dal te ay góomam ñoo tax ñu wér nun ñépp réeroon ni ay xar ku nekk aw sa yoonu bopp te yàlla yen ko sunu njubadi nun ñépp fitnaal nañu ko dóor ko te ubbiwul gémmiñam mu mel ni mbote mu ñu yóbbu ca rendikaay ba mel ni xar mu luu ci kanamu ñi koy wat mu ne cel cig naa feq lañu ko àtte ba yeew ko rey ko ñi mu tollool jamono ku ci xalaat li jukkee nañu ko ci ñiy dund fàdd ko ngir bàkkaari askan wi suul nañu ko ci biir ñu bon ña rob ak ku bare alal te moona mësula def lu bon te fen génnewul ci gémmiñam waaye soob na aji sax ji mu gaañ ko laral ko bi mu jébalee bakkanam ni sarax ngir fay bàkkaar yi dina gis ak njabootam te gudd fan te jëfu aji sax ji lawe ci loxoom kon gis ngeen bu leer ne deewu yéesu lu yàlla namoon la te waajal ko yëgle ko jaarale ko ci yonent yi waaye garab gay doon pénc lawbe du ko gis ba di ko gor yàlla njuuy na seytaane ak gaayam yi doon jéem a fanq pexeem kenn mënul woon fanq deewu yéesu almasi bi ndax coobare yàlla la deewu musalkat bi yéesu mooy garab gi doon pénc ci mbindi yonent yi deewu kirist mooy xolu xabaaru yàlla ba tax yàlla ne képp ku bëgg mucc ci àtte bi ñëw faawu nga gëm xabaaru deewu kirist ca bant ba ku ko nanguwul xanaa di ko weddi yaa ngi mel ni lawbe bu ñëw cib dëkk di jéem a gor seen garabu pénc luy xew su booba li wér mooy waa dëkk ba dinañu mer lool noonu itam bind mu sell mi ne na bésu àtte ba merum yàlla dina wàcc ci ñépp ñi weddi xabaaru yonent yi ne kirist ngir dind sunuy bàkkaar ni ko mbind gannaaw li yonent yi yëgle ci mbirum deewu musalkat bi yéesu ci boppam daan na farala wax ay taalibeem ne war na dem yerusalem ga mu waroon a deewe te mu daj fa coono yu bare yu jóge ca njiit ya ca sëriñ su mag sa ak ca xutbakat ya ñu rey ko mu dekki ca ñetteelu fan ba loolu lépp amewoon na ni ñu ko waxe woon bi yéesu ak i taalibeem àggee yerusalem ñu jàpp ko dóor ko saaga ko xas ko tëfli ko def ko lu ñaaw lu nekk gannaaw gi ñu daaji ko ca bërëb ba ñuy wax kaangu bopp di golgota ci làkku yawut noonu kàddu yàlla nee na bi ñu yóbbu yeesu yóbbaale nañu itam ñeneen ñaari defkatulu bon ngir rey leen bi xarekat ya egse ca béréb ba ñuy wax kàngu bopp ñu daaj fa yéesu ci bant daajaale ñaari defkatu lu bon ya kenn ca ndeyjooram ka ca des ca càmmoñam noonu yéesu ne baay baal leen ndaxte xamuñu li ñuy def mbooloo maa nga fa woon taxaw di seetaan njiit ya di ko reetaan naan musal na ñeneen ñi na musal boppam su fekkee mooy almasi bi ki yàlla fal xarekat ya it di ko ñaawal ñu jege ci jox ko binegar te naan su fekkee ne yaay buur yawut yi musalal sa bopp bi xarekat ya daaje yeesu ca bant ba ba noppi dañoo jël ay yéreem séddale ko ñeenti cër ku nekk benn jël nañu it mbubbam mu ñu ràbb ca kaw ba ci suuf te amul benn ñaw xarekat ya di waxante naan bu nu xotti mbubb mi waaye nanu ko tegoo ay bant ngir xam ku koy moom noonu xarekat ya def nañu la yonent yàlla dawuda bindoon ne seddoo nañu samay yére tegoo ay bant sama mbubb noonu kenn ca defkatu lu bon ya ñu wekkoon ci bant di ko xas naan ko xanaa du yow yaay almasi bi musalal sa bopp te musal waaye ka ca des yedd moroom ma naan ko xanaa ragaloo yàlla yow mi ñuy mbugal ni moom nun yelloo nanu sunu mbëggal waaye moom deful dara noonu mu ne yéesu fàttaliku boo dellusee ci sa nguur yéesu tontu ko ne ci dëgg maa ngi la koy wax tey jii dinga texe ak man ci jataayu yàlla li tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm ci tisbaar nag yeesu woote kàddugu dëgër naan eloyi eloyi lama sabaktaani lii tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëddu ñenn ci ña fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo yonent yàlla iliyaas noonu kenn ci ñoom ne bàyyi leen nu seet ba xam iliyaas dina ñëw wàcce ko waaw ñoom ñu ngi doon wax loolu ndaxte jàpp ñu woon li xew ak li yeesu waxoon ràññewuñu woon ne ci diir bu lëndëm boobu diggante digg bëccëg ak tisbaar li taxoon réew mépp lëndëm mooy li yàlla yenoon ramukat bi mbugalu nit ñi bi loolu wéyee gannaaw yeesu xam na ne lépp mat na léegi mu ne nag ngir amal mbind mi dama mar amoon na foofa gut bu fees ak bineegar noonu ñu jël sagar tooyal kaca takk ko ci bantu garab gu ñuy wax isop teg ko ci gémmiñu yéesu bi yeesu bina binagar bi mu ne lépp mat na noonu yéesu woote ak kàddu gu dëgër naan baay jébbal naa la sama ruu bi mu waxee loolu mu delloo ruwam yàlla mbokki déglukat yi mbir mu doy waar a ngi nii yawut ya toroxal nañu almasi bi boom ko wante nanu bàyyi xel ci ne deewu almasi bi ca bant ba dafa dëppoo woon tembe ak pexe mi yàlla laloon ca njalbeen ga noonu laata yéesu di dee xamle na ca bant ba ne lépp mat na lu taxoon yéesu ne lépp mat na dina juy wax ne lépp mat na gisuñu ko fenn li ñuy wax kay mooy fekk yaa ngi dund dara matagul sag mucc ngi aju ci sa dayob jëf yu baax waaye yow mii déglu xamal ne xabaar bu baax bi yàlla wàcce mooy lépp mat na kirist fayal na la sa boru bàkkaar ak deretam ji tuuru sant yàlla soxlaatunu tuur deretu mala ndaxte lépp mat na yéesu kirist mooy sarax su mat ci yàlla joxe benn yoon ba faaw kon xarit yi leer na ne deewu yéesu du ñenn ñi tudde accident du it keneen moo dee ci palaasam yeesu moo dee moom ci boppam joxe na firnde yu wóor bi muy wax kañ fan ak naka lay deewe yeesu xamoon na lépp ci mbirum deewam ndax yow mën nga xam kañ fan ak naka ngay deewe xamuloo ko keneen it mënu koo xam ak ku mu mëna doon nag yeesu rekk a ko mënoon lépp li yonent yi yëgle woon ci deewu ràmmukat bi mat na waaw yow mii déglu ndax gëm nga ne yeesu matal na mucc gi yonent yàlla yépp daan yëgle wala dangay jéem a gor garab guy dooni pénc maanaam ndax dangay wedd dëgg gi nga xam ne moo ëpp maanaa ci xabaaru yonent yi wolof njaay nee na garab gay doon pénc lawbe du ko gis ba di ko gor xamal it ne yàlla ci boppam nee na yëgleb deewu yeesu kirist ci bant bi ak ndof la ci ñiy sànku waaye ci nun ñi aw ci yoonu mucc gi doole yàlla la waaye li àddina teg ak ndof yàlla tànn na ko ngir rusloo boroom xam-xam yi nu ngi yëgle mbootu xam-xamu yàlla mu nëbb woon te yàlla dogal ko ngir sunu ndam laata àddina di sosu kenn ci njiiti àddina yi amul woon xam-xam boobu suñu ko amoon kon duñu rey boroom ndam li ci bant bi yàlla aji mbëggeel la te firndeel na mbëggeelam ci nun ci li kirist dee ngir nun bi nu nekkee sax ay bàkkaarkat yéesu nag moom li tax mu mënoon a dee ngir far sunuy tooñ moo di dafa sell te taxul bàkkaar ndax doonul bàkkaar bi nekkoon ci sunu maam aadama kàddug yàlla seddeel na ko ko bi mu naan yeesu kirist mi mësula def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën a doon njubteg yàlla musalkat bu ni mel la nit ñi soxla ngir am jàmm ak yàlla deewu yéesu mooy jubale képp ku ko gëm ak yàlla moo tax taalibe kirist bu wér dafay am kóolute ne bu deewee tey ji tàbbi ajana xarit yi ñuy déglu li nu mënul woon a jëf ba tàbbi ajana yéesu defal nanu ko joxe na bàkkanam ni sarax su mat lenn rek la war léegi mooy nga gëm li almasi bu wax ca bant ba ne lépp mat na bu ko defee dinga mucc ni ko yéesu waxe woon ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund kon yow miy déglu tey ci lan nga wekk sa yaakaar ngir tàbbi àjjana ci sa diine ci say jëf yu baax ci sa aada wala danga wekk sa yaakaar ci xabaaru yàlla bu baax bi wax ne yeesu almasi bi dee na ci sa palaas ngir fayal la sa boru bàkkaar jërëjëf ci déglu bi nu ngi leen di jox dox daje beneen yoon su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci wax ju am solo ji yéesu wax laata muy dee ci bant ba ne lépp mat na